ليلى سيدنا ومولانا محمد من نال ما نال نيلا وعلى آله وأصحابه غر المحجلين وشم المبجلين مشاهدي على أوفياء من تلفزيونكم المفضلة تلفزيون فيتور ميديا نحييكم بتحية الإسلامية ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk gi nag bi ñu sant yàlla julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futur Média nuyu leen ziyaara leen ndokkeel leen ñaanati borom bi subhanahu wa taala yàlla defar sunu mbiri àddina ñaan yàlla it mu defar sunu mbiri alaxira ñaanal mbooleem xalif généro yi na ci biir réew mi ñaanal leen ñu yàgg fi lool te lool ñaanal xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour xalif général yi tiijaan ñaanal ko mu yàgg fi lool te suma ko nuyoo nuyu naa mboolem xalif généro yi mbokk yi ñu ngi fii ci dëkk bu tedd bi ñu ngi fii ci dëkk bu sell bi ñu ngi fii ci Tiwaawoon ci kër ak télévision Futur Média toog googu ngeen di toog seen kër moo tax télévision Futur Média ci ndigalal kilifa yi ndigalal xalifa bi ñu gàmmul leen waxtaanal leen ci Sidina Muhammad waxtaanal leen ka woote woon gàmmu ga jàmbaar ja Seex Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu ci téere bu mag boobule di xilaasu zëhëb ci téere bu rëy boobule di laamiya di li xat hëja xal ci téere mbooba ci téere ya ndax euh, li mu taalif ci téere kenn xamul nu mu toll moom Seex Sidil Hadji malik ñaanal njiitu réew mi yàlla dolli ko dëgëral ak kilifay réew mi ñaanal borom kër gi président Youssou Ndour nuyu ko ndokkeel ko nuyu kilifa yëpp mbokk yi tey jii nag nu am gan gu mag war a waxtaanee jàmbaar ja Sidil Hadji Malick waaye war a waxtaanee borom weer wi waxoon naa la barki ndimbu ni la at mi moo ko moom weer yi moo ko moom bés yi moo ko moom moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey daañu ko gën a xam. ma dalal borom xam-xam bu mag a mag di alxaaji Mouhamadul Mansour Diène xas Mansour maa ngi lay nuyu maa ngi lay ndokkeel maa ngi lay ziara maa ngi am mbégte lool ci ñu jàkkaarloo sa soppi na bitim réew ñëpp naan ma Mansour Diène moom kañ lay ñëw ñëw nañ am nañ ko tey xas Mansour nuyu nañu la ziar nañu la ma bàyyi la nga nuyoo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi walmuqtafin wa radia allahu taala an qutbi almaktuumi albarzaqi almaxtuum mumiddi jamici alawliya min alazali ila alabad xaatimi awliya arrahmani abilabbasi ahmad altijani wa an sairi xulafaihi wa muqaddamihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin ginnaaw bi ñu sante yàlla buur bu màgg bu tedd bu mat bi ñu bind ci matadi mm-hmm. ñu jaamu ko ci matadi gi mu fay ñu cig matam Allahu ñu tooñ ko ngir matadi mu jéggal ñu ngir matam buur bi waral ci ñun farata yoo xam ne taxawe farata yi day jut ci ñun njariñ ñu sàggane ko mu gëmm ko ba njariñ ya egsi ci ñun Allahu buur bi ñu tere teeñ yoo xamante ni dëkk ca tooñ ya day jur ci nit ki alkande ñu dëkk ca tooñ ya mu gëmm ko ba alkande yi egsiwul ci ñun buur bi xam li ñu xam ak li ñu xamul te xamuñu lenn ci li mu xam te moo xam lépp moom subhaanahu wa taala buur bi mën li mu def ak li mu deful te mënuñ ci lenn ci li mu def bay mën li mu deful te moo def lépp moom subhaanahu wa taala pap an buur bi nga xam ni mhm. ba yàggug jamono jóge di ràppal aka màbbal nguuri buur ya ba mu egsee ca nguuram ga ràppalu ko màbbalu ko da ko saxal dëgëral ko ak saxal ak dëgëral goo xam ni lu jamono yi gën di dem nguuri buur yi ràpp yi màbb nguuram nga di gën di sax di gën di dëgër sëriñ Cheikh ni wa atattu ayidu mulkakal ayyaam allahu akbar buur bi nga xam ni dëgg gi nga xamante ni mooy jar ñi bañ na ni du askanoo ci ginnaaw keneen ku dul moom ndax xaju ca sëriñ Cheikh ni wa abaa si waakal xaq min si xaqihim buur bi nga xam ne lu mës am ak luy waaj a am njëlbeenu am gaak mujj ga la ca jaar mooma te moo ko bind yaa mën huwal xannaaq wala allaamu pap buur bi nga xam ni ñi gën a ñor ci li mu bind ba ñu jógee di gëstu ciy mbiram dogitu leer ci nuuru jamaalihu la ñu dajeel mu tàggate ngëmmeel leen xamatuñu fu ñu jógee xamatuñu fu ñu jëm taahat bi nuuri jamaalika al axlaam dañ mhm. Cheikh ni taahat gënëm boroom sagoya bi nuuri jamaalika ba ñu wóofaloog sa leeru jamaal di yeesal suñu jokkuwaay ci Seydil Xaaji ci diineeg tariqa mi ñu jëlee ci ceet doog réer indi ñu ci diineeg tariqa Seydil Xaaji Maalik mi ñu jëlee ci bakkan bànneexu bakkan indi ñu ci topp ak xàmmee Seydi Xaaji Malik mi ñu jële ci aada ci caaxaan indi ñu ci sunna tasawuf mi ñu jële ci aada ci caaxaan indi ñu ci sunna tasawuf laa ah, ilaaha sunna rek alaaji Malick. billaahi moo tax wax naa ko keroog ci benn télévision ma ne kuy njabootu Seydil Haaji Malick du ñu wax aaya alquran di ci gaareel sëriñ si ngay mer ndax moo Maodo kenn du ko gaareele aaya alquran dañ ko koy dëgërale ndax teg mu tegoon tànkam ci sunna moo taxoon mu ne yonent bi mën na ma gën a guddule tànk mhm. mën na ma gën a yaatule tànk waaye fu mu teg ba teggi ma teg fa sama tànk muy teg yonent bi teg Sidi Hadj Malick di teg yonent bi teg Sidi Hadj Malick di teg Seydina Cheikh jaar fa jàpp ci loxo Alaaji Malick dem ba ci yonent bi ni ni ko Maodo mi wala doon wax a ngi nii Seydina Muhammad ni ko summil sa mbubb mu summi diwal sa yaram ci sama yaram mu diw sa yaram mu ni ko yaa ko mës a am ci nitu yàlla nitu yàlla dootu ko amati mu ni ko boo demee Maodo Malick na nga ko waxtaane ba ñëpp dégg ko Alaaji Malick seet ña mu wóolu invité leen reer wax leen ko ne la ma fa defal may bàyyi ba yow mal xiyaam ma tàllal ko ñëpp gisandoo ko kooku mooy Maodo Malick Seydi Xaaji Malick mi ñu nangoo ci loxo àdduna ak Iblis teg ci loxo yàlla ak yonent bi kon la shakka bi ann alxaaji Malick xalifatullahi wa xalifatu rasuli fi ardi moo tax Paul Martini ce marabout doit être à l'heure actuelle le chef le plus important le plus instruit de la colonie comme il en est le plus lettré et le plus sympathique Seydi Xaaji Malick ibnu Ousmane borom gàmmu gi di yeesal suñu wéeruwaay ci borom bonekaare bu tedd bu taaru bu yëkkatiku bu yiw bu sell bu siiw bi ci mat geeg maandu geeg muñ geeg muñ gu rafet geeg màgg geeg mucc ci bàkkaar sëriñ Babacar Sy mi fi teegaloon baayam 22 ba 57 toog ci seesu xilaafa ki jàkkaarloog nooni baayam nooni diine nooni boppam ku ñëw mbay jàggi la ruur ba kenn ruurul li fi Maodo bàyyi woon sëriñ Babacar Sy toog bakkan song ko bànneexu bakkan iblis ak seytaane mu yëkkati ba ci kaw dóot ci suuf Seydi daan na waaw suñ Babacar Si kenn du laaj mooy kan da ngay xool da ngay xool ay doomam ak ñi mu defar alxaaji Mansour Dani alxaaji Mansour Dani booy xool alaaji Malick martabaam bul xool ci alaaji Malick asxaabuhu wa julaasuhu aghnawka an tawsifihi nee na alaaji Malick ñi mu defar ak ñi mu doon toogal di leen di leen tëbb ci xam-xam ak leer nee na boo leen xoolee ñu yem la nga xam ne ka leen defal du moroom ñu ni ko waaw Mam Mansour fu ñuy gisee ñooñ mu ni wahum fii kulli makaanin àddina foo xool fekk fa ku Maodo defar foo xool ci àdduna rek di fa gis koo xam ne Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu moo ko defar Pape Hann damay wax ni ñaar moo am neen gu ñu organiser ak dëgg gu ñu teg ci xaqiqa neen gu ñu organiser bu teewee dëgg gu ñu teg ci xaqiqa teew kuy nitu àdduna bu ñu lay tànnaloo di nga fa bàyyi dëgg gu ñu teg ci xaqiqa te dëgg gi ñu teg ci xaqiqa moo nekk tiwaawoon te moo tax tiwaawoon boo fi ne tëll li lay jariñ doo ci teg bët waaye xel ak yëg-yëg moo koy am dama wax ne alaaji Maalik ñett la soxla ci nit ñett lay jëflante ak ñoom te ñett ya mu soxla bët du ci tege ñett yi muy jëflante ak ñett ya bët du ci tege la ko tungoom muy xaqiqatul muhammadiya innal xaqiqatal muhammadiya mancha usi tariqatil fardiya bët du ca tege kon boo ñëwee set tiwaawan zahir bi bu la nax baatin bi mooy mbir mi ñetti yi mooy lan bu njëkk bi mooy al aql xel xel li ci alaaji Malik di def moom mooy xam-xam. waaw ni mu leen defaree man la Sidi xaaj Malick ñett yii lay soxla ci yow pour defar la bu njëkk bi mooy xel la soxla moo tax moo dooni woon tànn naa xel alaaji malik ne ñëw kajoor fii ñin ñi gën a yeewu nekk mu samp fa ba pare jàngalaat leen ak taalimu yuqisu damir ba ñu xam lu baax ak lu bon alaaj Malick jiitu di jëf ñuy gis di wax ñuy dégg waxul lu wàcc sunna ak sharia jëful lu wàcc sunna ak sharia ba kenn amul lum ci mën a jam moo tax mu bàyyi woon ba euh, euh, karaama teg ko fële moom alaaji Malick dani dani wa batilun lam yuwaafiq bi shariatina faktubhu billaami laa bi nuuni moo tax Serigne Cheikh Tidiane si ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indiwul xar baax ñu ne ko lu tax mu ne yéwénal baax di kenn yónni ko pour mu xar baax dañ koo yéwni pour mu yéwénal mbaax yéwénal mbaax goog nga xamante ni nag mooy base mission moo tax diineem fayul te diine yi ñu sampe woon xar baax fay maa Malik jël xel di ci def xam-xam xel bët lu ci tege. xam-xam bët du ci tege sidna muhammad diggante bañ ko yónnee wallahu arsalahu lil alamina hudan ak waxtaara mawlaahu ismallahu xayarahu diggante bi yëpp sidna muhammad xam-xam la fa def yàlla ne ko udu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawizati alxasana ba programme ba ko yàlla joxoon jeexee mu ni ko bàyyil ma wuy si la Seydi Haaji Maalik ba mu dalee jàngale ba bis ba nga xamante ni nii jël na ay téeréem fat ko ci téere ci biir kamo mag ñëpp xoolante xam ni mission mooy mission yonent bi mission yonent bi ba programme ba jeexee dafa wuyu ji boromam mission Alaaji malik programme bi jeexee dafay wuy ji boroomam Seydi Haaji Malick fat téere ci biir armoire yi tëj ko keroog la Alaaji Malick génn àdduna kon ñaar yooyu benn bët du ci tege beneen bi mooy jikko Alaaji Malick bi soxla ci nit mooy jikko jikko li ci Alaaji Malick di def njub la ciy def inna allazina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu al istiqaamatu bi fi'lil ma'muraati wa tarkil manhiyaati al istiqaamatu hiya al ityaanu bi shay ityaanan kaamilan waaw waaw moo tax see seydna cheikh loolu la indi rabba bi laa xawlwatin ashaabu alana xata staqaamu moo tax alaaji malik indi ko cheikhun taqiyun laa yuzannu bi ribatin wa ala istiqaamati bil ilaali muaani wa muaanin bi istiqaamati bil ilaahi moom seydi xaaji malik beneen bi muy ñetteel bi moom mooy xool sëñ Pape nga ne xol ak seetu ñooyam xol ak seetu ñooyam soo mooyee yàlla dañ lay defal benn tomb bu ñuul nga moyaat bi defal la benn tomb bu ñuul nga mooyaat ñu defal la benn tomb bu ñuul ñu dem ba tomb yu ñuul yi fees ci seetu bi ñu ni xol bi dafa ñuul dafa wow kenn mënatul a defaraat waaye nag booy ñëw ci alaaji Malick indi xol bu ñuul booy dem bu set wecc ci ngay indi yóbbuwaale xam nga lu ko waral daf ci yor yu détergent yu garaaw alaaji Malick boo ñëwee lim lay njëkk a dóor mooy téeméeri istixfaar mooy ataxal lii a taxal li bir razaili da lay dind ba nga sedd wicc wicc ci jikko yi ñaaw yi ak comportement yu bon yi sama turandoo ni téeméeri paanu ndox ku ko sangoo setoo dootoo setati moom waaw dañ ne tariqa bi ndax ku ku bon dina ci dugg borom bàkkaar dina ci dugg ñu ne déedéet tariqa bi kay pour ñi am bàkkaar ñi bon ñooñu la in baaban li najaati kulli musrifin mutaalliqin bii cheikh dañuy yonent bi yonent bi daf ko wàccal bi ta nazuli wàccal jël jaam yóbbu mu ni àgg naa ba pare su ma wàccee bu fekkente ni condition ku takk ci man loo tilim tilim loo bon bon waxuma la boo jëree sama tariqa boo ma soppee yow yonent bi yaay doon garanti yonent bi ni ko naam ni ko am léegi nag boo ñëwee bu la jafalee taxal lii mooy fóot la ba nga set wet ku sango ba set nooy def da ngay sañse Pape Hann da ngay sañse mu indil lal salaatul fatiha muy ataxalli bil fadaili nga takkaayoo rangaayoo ngëneel yi ci sababu salaatul boo sangoo ba set Pape Hann ba jekk nag mu daal ne nag ñu ata jël lii laa ilaha illallah ñu commencé di la saañ leer yi di la ko roof allahu akbar moo tax taalibe cheikh yi damay wax ni Pape foo gis ku jekk loolu mhm. mën a sañse loolu mhm. rafet loolu mhm. di xeeñ lu neex sopp lu ba ku ko gis sopp ko boo koy woo nee ko taaliba bi. waaw waaw waaw ndax dama ni nite naan nite nice neex nit ñi ba neex a nekkal set sell chon simple di sant yàlla yiw yaru yam yamale bay yaatal diine taalibe cheikh leer tey chon charme dojjonge bëri feem tey taaru tàlli dal te ndaanaane soppul la ba ku la gis sopp la sëñ Babacar Sy fala tara ahadan min ahlihi abadan illa wa simaahu fi husnin mutasib ah xamoo am na ñoo xam te ne bu ñu jàppee am na ñoo xam ne bu ñu jàppee TFM xam nga lan moo leen fay téye déedéet o oh, An bi suñ xoolee o bi rek mais yaa ngi may of mbay lu mu wax ah, ah? ak Abdoulaye suñu xoolee oo bi rek dootuñu demati loolu lan la fala tara ahadan min ahli abadan mais mais yàlla ma def taalibe Cheikh moom laa bëgg a doon taalibe Alaaji Malick am na ñoo xamante ni kenn du jëm ci ñoom te xëccuñu la sëñ baabakat si nee na man Babacar ku ma jotul ci yow maa la soxlawul kon ku mu jot ci moom moo la soxla sëji xaaj maa ngi ne ayyuhal mu'ridu anna inna i'radaka minna law aradnaaka ja'alna kulla ma fika yuridna mhm. wa in tabaddalta bina ghayru fa hasbuna allahu wa ni'mal wakil alaaji maa ngi neen boo ñu fi bàyyee dem feneen boo ñëwee fekk ñu fa hasbuna allahu wa ni'mal wakil ñu doon nekk ci buntu yàlla soo fi toogee nag ñun ñoo la fi indi allahu akbar mu neexul doo fi ñëw santal yàlla ba nga fi ñëwee alhamdulillah boo defee laa ilaha illallah muy nag te jël lii te jël lii boo ko defee taxalli taxalli bil razaili taxalli bil fadaili te jël lii ñu roof la leeri laa ilaha illa allah nga dem ba ci jëwratu kamal boo jë salaatun tuarifuna biha ihaaw nga am makaanu maarifa di nitu yàlla ko sotti sëñ babacar si ni wa baydatuhu tubaahu axi bi alfin fa maa lil farqi fil bayi kalaamu xam nga luy bayda déedéet kuy doog a jël werd te weer dëggul mooy bayda mooy bayda sëñ babacar si ne junniy wëllu yu bokkul ci tarixa bi ngay tollool ki nga xam ne jël na tariixa bi. te weer dëggul te weer sëñ Ba kooku mooy nen bi. mooy nen bi. tubaaxu axi bi alfin junni yi wëlli yu bokkul ci tariixa bi ngay tolloon ñu ni kon cuuj bi nag ki yàgg werd mu ni famaa kalaamu déet ngay wax. déet prix déet prix li di ñeel ki yàgg moo tax sëñ bu dee wecc ay junni awliya u kamaal. waaw lan mooy xaymab cuuju tijaan. amul prix moo tax sëñ Ba ko kalaamu déet prix lil farxi fiatun min ashaabihi law ijtamaa aqdaabu ummati nabiyi lmuttabaa maa wazanu shaaratun min fardin minha fa kayfa bil imaamil fardi juróom benn téeméeri nit ñu nekk ci kuréelu tariqa bi nee nañu kenn ku ci nekk boo jëloon sa yeelu karawu yeel teg ko ci balance xutbu yi nekk ci xeetu yonent bi te bokkuñu tariqa cheikh yaa leen ëpp yoon allahu akbar moo tax góor gi Ahmad Baro Mm-hmm. góor gi Ahmad Baro dafa ni nitu yàlla yépp ku ci nekk am na bis booy màggale yàlla ba mu des man dinaa ut bis bu ma màggale yàlla bis bu mu xool xam ni nitu yàlla yi jël nañ ko mu ni dinaa jël bis bu ñu jëlul mu ni naa jël bisu xare badar ndax ci la lislaam njëkk amee ndam mu jël bisu xare dar ni fan naa koy defee góor gi mën Mansour Baro Ahmad Baro Ahmed Baro mooy bàyyam mooy bàyyam bàyyi mun bàyyi mun su dëgg moo jur mun su baro bu mbuur Ahmad Baro ni damay dem. Mansour Baro moo daan ñëw fii ne El Hadj Malick dafa génn. waaw toog ba mu yàgg na Thierno Ari ñëw na. ah, ah Ahmad Baro. moo moom moom wax nañu ni euh, bu daan euh, xam nga sax lii bégal taalibe la. bëggal taalibi la ndax di leen wax li nga xamante ni seeni sëriñ ñoom lañ am ndax kilifa yi dañ ko daan wax ñëpp di ko dégg te aussi tamit li may wax public bi may waxal mooy public bu tijaan yi ñoom laay waxal ñi nga xamante ni nii gëm nañu alaaji Malick dëgg la ñooñu lay bégal dëgg na ku nekk di bégale say njaboot ñoom laay bégal mais kenn ku ne da ngay bégal sa njaboot ci sëriñam Ahmad Baro dañu wax ni fu mu mësaana dox Seydina Muhammad day nekk ci ndeyjorom Seydina Cheikh nekk ci càmmooñam Allahu akbar bis mu jekki ni damaa xif ni bëreet jug si Tiwaawan bi mu egsee ni tëll gis Seydina Xaaji Maalik ni tëll mu gis Seydina Muhammad nekk ci ndeyjooram Seydina Cheikh nekk ci càmmooñam mu ni alaaji Maalik maa leen fi indaale wala fi laa leen fekk Maodo ni ko ñaar yëpp mën na nekk te boobu xamul kuy Seydina Muhammad xamul kuy Seydina Cheikh Maodo ni ko kii mooy Seydina Muhammad kii mooy Seydina Cheikh alaaji Maalik jox ko turu yàlla ni ko turu yàlla bii ma la jox doo ma jege werdu ko mu ni ko samp naa mbuur ba pare xool taalibeem bu nekk daaka muy Ahmad Ba mu jox ko ko mu rëkk ko fa muy tàkk kon ku takk taal bu fi am rek alaaji Maalik ko jëfal ca allahu akbar alaaji Maalik taal bu fi am mhm. moo ko ba mu nee man bis bi nag fan laa koy defee ahmad ba ahmad baro mu ni naa ko defee Madina Gunaas mu ni Madina Gunaas am nañ seen bis ba pare mu ni kon naa ko defee mbuur mu ni bu ma ko defee mbuur day mel ni damay propagande xelam ni mbuur tiwaawan mbuur tiwaawan mbuur Madina Gunaas mbuur Madina Gunaas bi mu tëddee guddi am haatif bu ni ko mbuur ak Medina Gunaas gële ngay wax ña fa tëdd mënuñoo weesu xutbu waaye alaaji Malick ma tëdd Tiwaawan benn karawam wecc na ay xutbu laa ilaha illallah fi atun min ashaabihi law ijtamaa sidil haaji Malick taabu ummati nabiyil muttabaa maa wazaru saar min fardin min ha fa kayfa bil imaamil fardi kon Cheikhuna Tidiane mi leen yëlif nu mu ko kenn mënu koo xam kon gaa yi àgg àgg doo ko doo ko tëkkaleeg Seydil Hadji Malick déedéet ay ndongoom ngay tëkkaleeg Alaaji Malick tariqa bu Cheikh Omar Fouti yi dafa naroon ber tariqa naa Muhammad feeñu ko ni ko demal bokk ci tariqa cheikh ndax moo fi wérlee waaw ma wax la ni la Alaaji Malick lii jariñ ci këram boo ñëwee bët du ci tege mhm. wax naa la xel bët du ci tege waaw wax naa la xam bët du ci tege wax naa la jikko bët du ci tege wax naa la njub bët du ci tege ma wax la euh, ma wax ma wax la njub bët du ci tege ah wax naa la xol wax la leer tamit. waaw waaw waaw bët du ci tege. ñu ni kon Maodo lay jariñ këram boo ñëwee ba di ci tege sëñ Babacar si ni tëll ni taxaw naa jàkkaarloo naag la fay jariñ te sama bët tege na ca waaye sama bët ba ca tegee mag diagnostiqué ko xool naa ko ne loolu yéeme na yéeme goo xamante ne amul ci beneen kër nitu yàlla sëñ Babacar si ni ko bindal mu ni hël rawdatu xënnaa u chimtu ayaani sëñ Babacar si ni fii haa xaraibu lam tarana aynaani dëgg dëgg li ma gis ci sama kër baay bi muy alaaji Malick ci nga xam ne haqiqatul muhammadiya jita manshau zi tariqatil fardiya boo mhm. ko tungoom lam taral aynaani nee na bët mënu koo gis feneen foo mën a dem doo ko fa gis allahu akbar sëñ Babacar Sy ne këru nit yàlla bu am tonalité bu ne am nga légion ak kër Seydil Haaji Maalik Sy radiallahu taala anhu muy kër Seydina Cheikh di kër Cheikh Omar di kër Mouhamadul Ghali di kër gum mënti doon Seydi Haaji Maalik baaba Babacar soxloon ñu ngi ko Babacar Sy bindal mu ni zi rawdatul gannaa u zaatu qaraari watalaa saqat xanaa min xikmatin bidiyaari bidiyaari al qawmi te sëriñ Babacar si façon wax way wax wayam façon baati luxaam kenn xamul lu ma doon doo ko gis fenn. mu ni nag sëriñ Babacar si ni kon bokk alhamdulilah ba sama kër baay bii lépp luy cër mu làq ko moo tax mu ni ko fa rawdatukal fudula papa xawat kulla xaswatin lépp luy cër sa kër gi làq na ko. fa rawdatukal fudula. xawat kulla xaswatin saa mu ne ko wa ant dëgg dëgg bàyyi riyaasul naa si yaay xettalu nit ñi fii kulli baldatin ci bépp dëkk bépp àdduna kiy xettal nit ñi mooy yow moo tax mu ne ko law laa wujuduka fi zamani amaatanaa atshul wusuli wa kasratul jawalaani nee na ko papa bu ñu la amul woon ci jamono ñaar dinañu rey mm-hmm. wëri ku ñu jekk jokkale ci yàlla te moom mii sëñ Babacar daan na wax ni defar nit ba mu yegg ci yàlla ak tibb ci suuf si laa yemale man Babacar si ki ko defar alaaji maag nu mu atchul wusuul yi dinañu wër ku ñu jokkale ci yàlla ba soll duñ ko am te alfatxu zawaalul xujubil xaaila bayna al abdi wa bayna al xadrati al qudsi adadul xijaab miatu alfi xijaab wa xams wa sittuna alfan xijaaba 165 000 xijaab moo dox diggante jaam bi ak borom bi xijaab bu ne perse ko boo amul tawfiqul ilaah yi mënoo ko boo la dindilee xijaab yëpp am nga fatxu boo àggee ci xadra ba am nga wusul boo àggee ci xadra ba am na beneen martaba bu fa nekk martabatul kamaal boo ko amul dañ lay jàppe nit simple ki àgg xadra ba am fatx am wusul am martabatul kamaal la muy am ci jaamu yàlla mi yow Pape Hann nii taalibe Cheikh te àgg goo fa yaa ko ëppalee allahu akbar alaaji Maalik ko wax ajal waaw waaw yanaaluuna min al azkaari al aaliyaati hmm. inkaari dinañ ca am maalam yanal loo xam ne du ko am akaabirul mooy ñan alkumal ña àgg ca xadara ba ba am martabal kumal al axbaari ko law laa wujuduka fi zamaani amaatana atshul wusuli sëriñ Abdul Aziz si al amin hmm. radiyallahu nit dafa jóge Saalum jàmbar ja mën naa laa wax turam waaye jëru ko waaw ñëw ci alaaji Malik ni ko yàlla ju dara laa soxla moo doon ni ko li nga bëgg jafe na waaye am na fi mu ni ko am na fi de alaaji maa ngi ni ko toogal mu toog mu koy tarbiya mu toog fi ay jamono beneen nit jóge ca gox ba mu jóge woon di doomi borom barke ñëw alaaji maa ngi recevoir ko ci bis bi yeewi ko ci bis bi waa ji wax ci xelam kii de li muy doomu borom barke rek moo tax man ma te mu téema fi ba ba léegi kii ñëw mu ko ci bis bi yeewi ko ci bis bi kii doomu barke la mm-hmm. sëñ Babacar Si ci xelam la ko wax nitu yàlla moo ëpp doole malaayika wallaahi malaayika li muy yaalamuuna maa tafaaluuna bu dee nit yàlla yàlla na koy branché ci yaaman yaraa maa fi yi wa yasmau mu wax ci xelam ni kii li muy doomu borom barke moo tax alaaji maa gi yewi ko ci bis bi recevoir ko ci bis bi alaaji Malick bàyyi ba ginnaaw timis mhm. mu toog wéeru ci baraag bi woolu ko mu ñëw mu ni ko diw mu ni ko nangam mu ni ko tey de am na sa mbokk mu fi ñëw jóge Saalum waaye boo gàttee xel di nga ne li muy doomu borom barke moo tax mu recevoir ko ci bis bi yeewi ko ci bis bi. laa ilaha illallah. waaye mu ni ko faatixa ji muy wut ak ji ngay wut bokkul. faatixa ji muy wut. ak ji ngay wut bokkul. allahu akbar. kon faawu nga toog. faawu nga toog mu téye ko téye ko ba bis alaaji Malick woolu ko mu ñëw. mu ne ko duggal ci néeg bi mu dugg am ku mu fa fekk wax ak moom génn alaaji maa ngi ne ko fekk nga ko gis nga ko mu ne ko waaw mu ne ko wax nga ko sa soxla mu ni ko waaw Seydi Haaji maa ngi ne ko kookoy Cheikhuna Tidiane mu ni bërit moo doon ni ko fooja mu damay dellu waxaat ko sama soxla moo doon ni ko loo ko waxoon mu ni ko dama ni ko yàlla naa doon taalibe Cheikh Seydi Haaji maa ngi xëcc mbubbam ni ko toogal taalibe Cheikh ci la lépp nekk la ilaha illallah ah Pape Hann wax naa ko démb xaw ma bët ki démb. Mhm. ñi ma nekkaloon ma ni leen laaj leen ma ku bëgg a dem aljana nu muy def. nu muy def xasma suuf laaj ma ko. laaj naa la ko. Pape laaj ma ko bëgg a dem aljana. laaj naa la ku bëgg a dem aljana nu muy def Mansour Dieng. Pape boo bëggee dem aljana xam nga nooy def. déedéet da ngay ut sa jànq bu baax. nga fekk taalibe cheikh bu baax. nga may ko ko ñuy def ba mu baax dee dem aljana continuer dafa def ba mu baax xam nga ni lii baax na. wa yadxulul jannata xaawil wurdi wa waalidin wa zawjatin kal wuldi kazalika al ashaaru sëñ ba seen xaaji maa maanaam goro yi gorob tiijaan day dem aljanna ah, maa ngi lay dégg day dem aljanna allahu akbar day gorob tiijaan day dem aljanna mais moo tax man xale yu jigéen yi may ñaan loolu na ñaan ma am taalibe cheikh lool rek la ñuy wax te bu ñu dul taalibe cheikh sax dañ naan ñaanal ma ma am taalibe cheikh bàyyi fa ñu nekk kon taalibe cheikh lëf la allahu mu ni ko law laa wujuduka fi zamani amatana atshul wusuli wa kasratul jawalaani mun ko papa nul ji zuhura wala nara min dawhatin wa yura bina dam'anu maa al ghathani mu ni ko nu nul jë zuhura wala nara min dawxatin bi maana wala nara du ñu gis min dawxatin ci garabu nànjal ma mhm. boo xamante ni mat na ko muy sëriñ bu mat sëriñ boo xamante ni nul jë zuhura dinañ ci wéer suñu ginnaaw man sëñ Babacar ak ñi ma yaakaar wayuraa bi naa te bu boobaa ñu gis si ñoom zam aanuma alxër saani ñi mar ku leen yóbbu ci yàlla ba dee ñi xiif ñu leen yóbbu ci yàlla sëriñ bu mat sëriñ bu mel ni alaaji Malik ba faa allahu dinañ ko gis moo tax Maodo sëñ baaba si bu ko daan tagg du tudd turam day xam ni moom donga yeloo taggam danaa ko yaaman dara annahu maxsuusu amdaaxi bi maa xawat min sifaati shawqi islaaxi papa jultul mawaamiya juttul maala fi talabin cheikhun yurayni fi maalal wasli lil maaxi alawtu kulla taluurin qad sama maa tas mm. ali taraaixi min dalili afraaxi mais mais mais xaj Mansour xam nga yéeme ku mel ni Serigne Babacar Sy. nga xam ne not na continent. alxaaji Mouhamadul Mansour. ku mel ni moom. alxaaji Abdul Aziz Dabaax. alxaaji Mouhamadul Habib ñii. ba noppi Maodo jommal leen. mais kenn xamul kan ay Seydil Hadji Malick mais diggante Maodo foofu nag diggante Seydil Hadji Malick ak rasulullahi. waaw Seydi Seydi Hadji Malick ñi mu defar ku mel ni Alhaji Malick Sarr. ca buudi. nga xamante ni moom moo ko defar Alhaji Malick Sarr. Euh, ak raw rawxaan ngoom ca paal alxaaji malik am na ñoo xam te ne bi ñuy ñëw ci alaaji malik xam nga lu ñu doon ut si dañ doon jàng si xam-xam waaw ñëwee yàlla jo doy leen ñu faf toog am ñoo xam te yàlla li ñu doon ut ku nekk ak la fa doon ut si ku mel ne alxaaji malik sarr alxaaj raw xaan ngoom seydi xaaji maaj defar ko ca ca ca ca euh, njaar ne ku mel ne alxaaji sàmba ngoti loo alxaaji sàmba ngoti loo daan na wax ni junniy nit mën naa leen a jàngal yàlla junniy at te li ma xam ci turu yàlla du jeex yenti yenti suuf yëpp xam naa lu ci nekk turu yàlla ba ngay sàbbaal te ba mu soxlaa sëriñ bu mat sëriñ dañ ne ko demal ci alhaaji malik la ilaha illallah alhaaji malik sarr sëriñ lem la woon euh, li moom sëriñ alhaaji malik ko defar xoole alhaaji malik sarr yëg nga ni Pape Hann sidna Muhammad bu muy juddu gént gamam Abdou Moutalib géntoon sëñ Babacar Si bi muy juddu moom la Seydi Xaaji Malik Alxaaji Malik Saar gént Abdul Muttalib dafa géntoon raa amanaa man aziman xaiman fabian waqiila yaa saddu qad ruyaaka fabtasimi garab ga mu géntoon waaw ginnaaw ba mu géntee garab gi pour gàttal pour tënk ñu bañ a ñëw ci garab gi dafa gént benn chaîne euh, euh, chaîne leer waaw ci ndigg li dem penku jëm soow daal di jugewaat leer gi juge ci suuf jëm kaw asamaani juróom-ñaar bi ñu ko nettalee ñu ni ko leer gi penkook soow mooy penk ba soow attee sidna Muhammad moo fay dox suuf ba kaw mooy ni ciy dox mooy dina jóge ci suuf dem ba ci boroomam alxaaji Malick saar def li sixaar ak sëñ Seydi Xaaji Malick alxaaji Malick Sarr génn ni sëñ Babacar Seydi Xaaji Malick man dama gis leer gu buddee penku jëm soow ma laaj ñu ni ma doomu alaaji Malick juy juddu la Babacar lay tudd te moo koy donn ma gis Seydi Xaaji Malick ni ko man li ma gis mooy leer gu buddee ko ci suuf jëm ci kaw asamaan yi muy firi loolu. ca tet tet alaaji Malick toog ca ndombo. di liggéey wasilatul munaa ca ca ndomba sax njëri waaw di liggéey moo jàkkaarloog ndomba àllarba di jàkka di liggéey wasilatul munaa mooy tey siir ca taatu garab ga alaaji maa dem ba ci biir ne kun lanaa rabbi fii kullil umuuri fa man yakun kazalika yalqal yusra ya allah <laughs> yàlla lu ma yëkkati yëkkati ndoo koog man lu ma teg tegandoo koog man lu ma dugg duggandoo koog man lu ma génn génnandoo koog man leen sëñ baaba soo man yekkun kazalika ku mel noonu am mar mel nii ma bëgg a wax yalqal yusra am na martaba yusru ba yusru ba bu ñu dëxëñ ci biir 541 la moo ab ba mu paree salli ala sajidin qablal wara faala bi sabi miati amin rabbi yow mhm, mhm. ndaw la ñëw ni ko soxna si am na doom muy baaba kër si mu marché tey siir jël euh, secret yusru ba yusru de 541 aboubacrine c'est de 541 sallallahu alayka ya abdullahi muhammadin di 541 aboubacrin si di 541 mudhamataan di 541 aboubacrim si di 541 allahu akbar sëriñ cheikh ni sëñ babacar si turam turu yàlla la soo déggul contre ne allahu samiun mujibun 541 la aboubacrim si di 541 laa ilaha illallah la sayidi aboubacrim si di allahu akbar bañ tuddee doom ji ba pare alxaaji Malick saar wax ko ko sëñ ba sëñ Seydi Xaaji Malick daal di jëllale daal di bàyyi noonu léegi nag leer ga jóge penk jëm sow mooy xutbul xaafi xëy ni moo tax woykat bi woykat boo xëy ni al xutbu min xaafini ila al xaafi mooy sëñ Babacar Si mbay daan mbay daan mashriqi mooy al xaaf min xaafini ila al xaafi jóge gi mu jóge suuf jëm ci kaw nag sidna muhammad isra wal mi'raj bi raqaa ilal malik raqaa ilal malik bi jógee ci roqee ak malik jëm ci boroomam allahu akbar muy sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu mhm. ñooñu moo leen defar alxaaji daawda ja ca mbëllëxee ca mbëllëxee alxaaji daawda ja sëñ ba sëñ xaaji malik ko defar moom la joxoon soxna Umu Kulsum alxaaji daawda ja buur ba jolof dafa ñëw mhm. ni ko dama bëgg nga jox ma werdu salaatul fatiha alxaaji daawda ja ni ko ëpp nga ma taaliba sama sëriñ balaa lay yóbbu alxaaji malik la ilaha illallah. bi mu ko indee ci alaaji Malick alaaji Malick daal di koy jox werdu salaatul fatiha alaaji Daawda ja nee eh, buur ba jolof nee na su ma mësaana mer su ma reyul nit deretam tuuru sama mer du giif waaye ba ma alaaji Malick joxee salaatul fatiha ba ba ma koy werd ba léegi nee na melentaan mënatuma koo rey. la ilaha fi sultatin min jalaalihi wa min ajzihi hatta staqarra bi xaalihi nee na gis naa Serigne Cheikh sama maam alaaji Malick mu nekk ci ñaari pour pouvoir sultatul jalaal ak sultatul ajz bii boo ko yoree ñemewoo rey melentaan mhm. bañ joxee martabatul fardi ba Cheikhu Omar mu jàkkaarloog noonu yi vingt quatre heures la ci am nemewuta rey melentaan mu disparaître mystérieusement dans les falaises de Bandiagara loolu Cheikhu Omar vingt quatre heures la ci am Seydi Haaji Maaj am ci juróomi at ak ñaar juróom at sëñ Babacar Si am ci fukki at ak benn ci martabatul fardi xam nga lu tax allah sëñ Babacar si daa am lu alaaji Malick amul moo tax daan na wax moom Babacar si ne fekk dégg bu leen ni yàlla daanu na du ngeen dégg ni yàlla Babacar si daanu na ni daaneel yàllaa gën a yomb daaneel ma man Babacar si mhm. nee na daaneel yàlla moo gën a yomb daaneel ma Pape An boo ma doon dàq bëgg maa duma ma daw ba ci ginnaaw Balla Gaye làqatu Balla Gaye làq ma nga war a duma Balla Gaye ba pare door maa duma duma maag duma Balla Gaye bu gën a yomb waa Balla day xam naa kur pajam boobu. waaw <laughs> ku mu dal. <laughs> illa dafa làqatu ci ginnaaw yàlla yàlla làq ko kon bala nga jot ci moom jot ci yàlla. moo tax mu ni daaneel yàlla gën a yomb daaneel ma. parce que yàlla ko làq ba noppi. mu ci ginnaaw yàlla. mu ni fekk déggu ni yàlla daanu du ngeen dégg ni Babacar Sy daanu nag. te yàlla du daanu mukk jël ndax dafa wéer ginnaawam ci Alaaji Malick Alaaji Malick wéer ginnaawam ci Cheikh Omar ci Mouhamadul Xaali Cheikhuna Tidiane yonent bi yàlla te bu ñu daanuwul du daanu kuy wéeru day seeti gannaaw borom dayo ya ah, wax jàng ko kon. kuy wéeru da ngay seeti gannaaw borom dayo ya ngay seeti gannaaw yu borom dayo ya moo tax mu ni boo wéeroo ci ginnaaw borom dayoo yi nag dara du la mën a daaneel feek borom dayoo yooyu daanuwul te borom daanoo dayoo du daanu. du daanu wa atattu ay du ka kal ay yaamu wax naa la ko sànq. Mhm. kon alxaaji daaw ja wax loolu. kenn fii sultatin min jalaali wa min ajzihi xatta staqarra bi xaalihi mhm. luy dem ak ñëw mooy xaal. bu saxee ci nit di maqaama sida xaaji maa am sultatul jalaal ak sultatul ajz benn bi bu la gaynde séenee daw benn bi ñeme woo rey melentaan sëriñ Cheikh ni pouvoir yooyu mu am lu tax daaw xanaa daaw ko jëfandikoo mu ni walakinahu la aqla duunahu allahu akbar ji tànn na xel bàyyi fa pouvoir ya wa hal arafal aqwaamu ma fi jalaalihi mu ni nit ñi xamuñu li nekk ca jalaalu alaaji malik ndax wilaayatuhu tabqa mada dëhri bikratan nee na wilaaya gi mu indaale moom alaaji malik bi muy bi ko yàlla di def waliyu nee na wilaaya ga karaama ya ca nekk yépp noonu la ko delloowaatee jëfandiwu koo ko la jëfandikoo waaw xel la jëfandikoo mu Seydi El Hadji Malick moo tax Paul Maty waxoon ni sama euh, Seydi El Hadji Malick Sy a su déjouer le plan d'assimilation culturelle mhm. mis sur par la colonisation française tout en préservant la paix sociale le dynamisme propre à l'esprit de l'islam ainsi que les enseignements fondamentaux de la tariqa tijaniya seen Cheikh Tidiane si nee na jàngam ci téere yi réeral ci mbedd yi gën a dof ñëpp mhm. alaaji maa ngi nag dafa jàng ba pare wër dem àdduna bi yépp indi culture boobu mu jëlee ci àdduna bi daal di ñëw bi mu ñëwee moo tax muy sëriñ si tubaab yi bu leen leen sore na ngeen leen ñooxu ndax bu ngeen leen soree ñu jaxase leen ak moom di ku ñooxu tubaab bi tubaab bi di bañ bruit alaaji maa di jug fajar di indi culture boobu mu jëlee ci àdduna bi daal di ñëw bi mu ñëwee moo tax muy sëriñ si tubaab yi bu leen leen sori na ngeen leen ñooxu ndax bu ngeen leen soree ñu jaxase leen ak moom di ku yooxu tubaab bi tubaab bi di bañ bruit alaaj maa di jug fajar di naasiril xaq bil xaq ba réew mi foo toll tubaab bi di ses buy ses muy naasiril di dégg naasiril xaq bil xaq bi ñëw dak ndar samp fa alaaj maa samp ci wetam dóor bruit bi mu koy bi dem samp Dakar alaaj maa daw 100 mètres samp naasiril xaq bil xaq mënu ci dara tubaab bi daw daa dem France mu fekk ko fa samp fa zaawiya Maodo ba muy samp zaawiya du tey billaahi ku mënta toppandoo da ngay njëkkee Cheikh Seydil Hadji Malick Cheikh Seydi Hadji Malick jamono di dem ba doomam jii di Al Amin dem États-Unis fekk fa euh, njaboot Seydi Hadji Malick ya ni leen waaw yéen lu ngeen di jëriñ Alaaji Malick fii mhm, mhm. am ku ni ko ah fële de am na benn terrain bu fa nekk ñu koy jaay ab église la waaye milliard lay jar Al Amin dawal otoom ba ca église ba daal di wàcc taxaw wax li muy wax ni ñëw leen ñu dem barab bi Cheikhouna Tidiane jënd na ko ñu ne ko un milliard la pàkk bi jar mu ne Cheikhouna Tidiane jënd na ko sëriñ Abdou génnee def ca lu ca kenn deful la ëpp ca lañ jëndee barab ba ba pare ñëw Sénégal lu ngeen soxla wax leen ma muy envoyé bu daan dem Europe ak bu daan dem États-Unis day yóbbu ay dollars ak ay ay ay euro bu paree ña ko teeru mu jox leen ko bu ko defee ñi ci des naan ñun de suñu sëriñ si bu ñëwee fii lu am dañuy koy dañ koy jël yóbbu yéen seen sëriñ bi di ñëw di indi di fi bàyyi. sëriñ Abdou ni fi may tibbee. maag sëñ Babacar Si rekk a ko xam luñ ma laaj ma génnee su ma ko amul jox la wax ko mu jox ma Malick Fay moo ñu nettali ne sëñ Abdou dafa tëdd fii ci néeg bi mhm. ba guddi leen sëñ Babacar Si yee ko ni ko xale yi dañoo fàttee tëj fenêtre bi allahu akbar nee na muy jël ànd cuuraay bi di ko teg ci foto sëñ Babacar bi fi mu ne nee na mu ni ko waxal xale yi fi ñuy teg cuuraay bi ànd bi buñ ko fi teg foto bi wax moom mu wax ko sëñ Abdou ni ko neel xale yi fi ñuy teg an am nit dafa jóge dakaar takk njël njël bu ñu def alaaji Malick bu ñu def sëñ Babacar si ñu naan ko sa njël bi tekki ko waaye yii ngay def affaire yi nee mu takk njël bi takk njël bi ba egg si Tiwaawan ni tëll rek sëñ Babacar si seen ko rek ne xanaa xamu leen ni su ma rusul woon alaaji Malick ku ma woo ci foto ma wuyu la. la ilaha illallah. waaw kooku alaaji Malick ko ko defar. cheikh Mor Binta si alhaaji Malick ko defar alhaaji Faati Ñang alhaaji Malick ko defar alhaaji Abdou Salaam Lo alhaaji Malick ko defar alhaaji Góor Saani Ñang alhaaji Malick ko defar alhaaji Mëgëre Njare alhaaji Malick ko defar alhaaji Mëgëre Njare baayam da doon wax ni géeju ndar ba géeju ndakaaru ko fi wax qaala laahu qaala rasul maa la ko dàq waaye wusul guy àggali nit ci yàlla alhaaji Malick ko am alhaaji Mëgëre Njare alhaaji Malick ko defar alhaaji Mayor Sall alhaaji Malick ko defar cheikh Ibrahima Diop alhaaji Malick ko defar alhaaji Baba Jong alhaaji Malick ko defar Cheikh Ilimane Sakho alxaaji Malick ko defar alxaaji Serigne Babacar Sy alxaaji Malick ko defar Mouhamadul Mansour Sy alxaaji Malick ko defar Mouhamadul Habib Sy alxaaji Malick ko defar alxaaji Hadi Touré moo ko defar ñii la defalee Tiwaawan Cheikh alxaaji Ahmad Cissé Baro alxaaji Malick ko defar Cheikh alxaaji Youssoufa Diop Diaksaaw alxaaji Malick ko defar Cheikh alxaaji Ahmad Diop Bouyo Gueye Côte d'Ivoire alxaaji Malick ko defar Cheikh Seydi Ndiaye Mabey alxaaji Malick ko defar Cheikh alxaaji Ahmad Lo Thiès alxaaji Malick ko defar Cheikh Alioune Guèye alhaaji Malick ko defar Cheikh Moussa Niang alhaaji Malick ko defar Cheikh Cissé Fall alhaaji Malick ko defar Cheikh Makhtar Sall alhaaji Malick ko defar sëñ sëñ Alioune Guèye bi muy ñëw ci alhaaji Malick nee na lu ma jàng du ma ko xam nee na bi ma ñëwee ci alhaaji Malick ba alhaaji Malick jël loxoom ya daal di koy teg ci sama bopp bi xaaj ji ko nee na sama bopp bi sedd guy nee na boobaak léegi lu ma jàngati mokkal ko borom moo mën lii waaw moom moom sëñ Alioune Guèye moom sëñ Alioune Guèye lu mu jàngati mokkal moo tax fan yële passé gis naa ci télévision bi kuy wax naan waa Tiwaawan seen fóore bi ñuy tiitaroo muy muy sëñ Aline Gueye diwoo ko jàngal sëñ Aline Gueye baayam dafa koo juróon moom ak keneen daal di jënd sëñ Aline Gueye jox ko alaaji maa ngi ndax daa bokkoon ak moom daara beneen doom bi mu jox ko keneen ndax moom it daa bokkoon ak moom daara kooko la ñoo ña jàngal waaye àll Aliou Gueye sëriñ dee xaaji Malick ko ko jàngal. billaahi. moo tax nit ñu baax ñëpp gis nga diw bu ñu nee baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax. dëgg la am na xam-xam ndax borom. xam-xam yi ndax borom xam-xam ko wax. Cheikh Saadu yi nee na ala faiqil aqraani alqarn yonent bi nee na inna allaha yabaasu li hazihi l umma man yujaddidu laha dina rës min ku rës kulla miati sanna mhm. nee na cent ans bu ne yàlla dina yabal kuy yeesal diine diine ji mhm. al aqran mooy cent yi siècle yi ah. Cheikh Saadu Abi nee na siècle yi cent par cent ans yi li ci doon ñëw ka ca raw mooy alaaji Malik ñu ni ko kan la mu ne maliki dahrihi allahu akbar madaarisuhu fi l ilmi xayru madaarisin mhm. fi dikri walaw qudirat miata alfi ummatin fi kulli ummatin miata alfi qabilatin fi kulli qabilatin miata alfi rajulin aasha kullu waxidin minhum miata alfi aamin yaskuru kullu waxidin minhum fi kulli yawmin miata salaat ala nabi fa sawaabu jamici haadihi l umam fi muddati haadihi sinina oh. kulliha maa laxiqu sawaabu maratan waxid min salaati alfatiha billahi yonent bee jox yonent bi moo moo jox cheikh salaatul fatiha mu nar a dem mu mu ni ko toogal bàyyi moo yoxala valeur bi ma la jox ni ko bu ñu jëloon téeméeri junniy xeet téeméeri junniy xeet yi bu nekk am téeméeri junniy famille téeméeri junniy famille famille bu nekk am téeméeri junniy nit téeméeri junniy nit téeméeri junniy xeet téeméeri junniy famille ku ci nekk dund téeméeri junniy at ñu ku ci nekk booy bis bu ne nga jàng téeméeri salaatu ala nabi mhm. ñu comptabiliser ful ko nee na benn salaatul fatiha kopp doole moo doon ne ces xalimaam ala maratun minha minan naari fidyatun wa oh. mawtun ala al islaami jàng benn salaatul fatiha njot la ci safara ñu ni ko yàlla nammul ci yow aljana du la ko xamal yàlla ku mu namm tafay du la liggéeyloo liggéeyloo muy liggéeyaloo dina la téeñal téeñ ba mooy lan mooy salaatul fatiha maalik Fawad moo ñu ko indi. barakallah mi noonu Malick Fawad jàmbaar jàngoo Seex Sidil Xaaji Malick Hasbul Surdiin mbokk yi gis ngeen fi mu jaar ak wax nañu ko nay Maodo wax naa la di bi may nit pour nga bëgg ko faaw nga xam ko ba noppi waaye itam lenn ak ñenn ci Seex Sidil Xaaji Malick defar nga xam ni kenn koo ci jël rek kenn xamul lu mu toll kon Sidil Xaaji Malick la kenn xamul lu mu doon mais Hasbul Sur temps bi laay njëkkanteel dama bëgg nag ñu dugg ci rasulullah kon li desoon ci Seydil Hadji Malick waaw ma leb ko ba beneen jamono. mais mais mais ndax ndax la ca des da ngay di da ngay dellu si waat. Mhm. faaw nga ñëwaat. Euh, ñu àggale ñu àggale parce que il faut ñu def spécial Seydil Hadji Malick boo xam ne Maodo rek la noo waxtaanee. Mhm. mais diggante Maodo. Mhm. rasulullah yi. fi mu jaar Seydina Muhammad moom Cheikh Seydil Hadji Malick nga xam ni. kenn ku ci nekk am na ci cër mais cëru Seydil Hadji Malick Rasulullah yi moom kenn du ko werante ndax li mu ko wax kenn xamul nu mu toll muhammadun ahmadul maahi wa xaashiruna nabiyu marhamatin tawbin wa multaxami mhm. te kasratul asma tadullu ala sharafi musamaahu mhm. yonent bi nee na am na juróom benn tur te yàllaa ma tudd yépp ci alquran mhm. ñu ne ko ban la mu ne muhammadun ahmadun taha yaasin muzammil mudassir te kasratul asmaa'i tadullu ala sharifi musawa abdullahi muhammadu rasulullahi te yàlla fu muy waxee muhammad rek day fekk jàkkaarloowul ak la waaye fu mu waxee muhammad ñeenti yoon lu muhammad ñëw ci alquran muhammadu rasulullahi wallazina maahu mhm. kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa ma muhammadun ila rasulin qad xalat min allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla amaluhum wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin mu ne benn tur yooyu yëpp nag yàlla moo ma tuddee muhammadun ahmadun taaha yaasin muzammil mudassir sëriñ xaaji maa ngi ko ndax jeex na mu ni déedéet ndax zaadal mawaahibu asmaan wa rattabaha ala alxurufi ila alyaa muntahal kalimi sëriñ xaaji maa ngi nee na xuruf yëpp bu ci nekk am na tur bu sëriñ xaaji bu seydina muhammad jagoo ñu ni ko ban la mu ni albaat mu ni muhammad lu ahmadun maahi xaashir muqaffa naa ne albaatinu aljaamiu daawatu ibrahima alhaadi alwaa'izu alzaahidu altaahiru yaasiin alkarimu allisaanu annaahi alsaabiru alaadilu alfaatixu aldaaribu bilqusaami alqaadiyu alraaficu alsaabiqu altaqiyu thaanis nayin alxabiru aldaakiru aldaahiru algaalibu alshaaficu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp mooy turam mooy ki nga xamante ni nag moo juddu ci bis bii moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alxaaji Pape damay wax ni lu waay du wuyoo bu ca wayee wéy ca am ca way bu ca wayee wéy ca am ca way te lu fi waay di wuyoo ba way ca wéy ca am ca way war na ko way rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax ba dara dara kenn du kenn lenn du lenn na bee fi nekkoon di kenn di lenn di def li defu ba dara di dara doomu aadama judd doon dara màgg tekki dara ba ñu mën a wax ni doomu diw ji moo fi def lii te lépp ci daraje rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te surga bu suurul sóorul suñu sóoree warul sore su bëggee surga bu suurul sóorul surga bu suurul sóorul waaw bu ñu sóoree warul a sore su bëggee suur dëgg la de ndax bu génnee kenn ko tibbal ndax ka sóor ba kenn sóorul tax ñi soorul di suur ci sóoram mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa ndax lu fi waaye am rek ci moom la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo judd nag ci bis bii moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydi Hadji Malick di ko maagal gis nga pap bokk na ci mandoo di gis nit ku yor emballage am bu dem. waaw lekk nekk ca xamoo la ca nekk nga ne la ca nekk daa araam. waaw loolu mandoo di la. waaw dangay ngay gëstu ba xam. gis nga gàmmu gi lii alaaji Malick organisé gàmmu geek organisation yeeg nit ñi ñëw ak jumaa jeeg burdu yeeg télévision yeeg ñu koy teg ak yooyu yëpp emballage la dafa am benn mission rek ndax nit góor bu amee mission. am am am am am message am bu rëy mu war koo jàllale da koy jàllale ci occasion bu rëy moo tax mu organiser occasion bu rëy rajulun waahidun bi risalatin waahidatin fii leelatin waahidatin alaaji Malick woo àdduna yëpp ci bis bi yonent bi juddu mu ja lancé message am mooy addaawatu ilallahi daa ilallahi wal mustamsikuuna bihi mustamsikuuna bi hablin ghayri munfasimi mhm. beneen bi mooy alquran ndax cosaanu gàmmu alaaji Malick da jàng jàng alquran xaaj bu njëkk bi mam rawxaan jàng alquran xaaju ñaare ñaareel bi moo tax al amin bu daan woote danaan mbalaanu wasifa yi na ñëw kaamil alquran yi na ñëw na dëkk bi riir oh. iqra'ul qur'ana fa innahu yati yawma alqiyamati shafi'an mm. mooy cëslaayu gàmm kan moo mën a araamal jàng alquran boo ñëwee ñu wax la kan mooy yonent bi yàlla ne kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allaha yàlla ne bu ngeen ma topp leen yonent bi mu bëgg la leen yàlla te nit bala nga koo topp di ko roy sopp mm-hmm. ko sopp googu nag bu ñu la waxul mooy kan alaaji maalik bu guddi ko ñëwee mu wax wax la kan mooy rasulullahi ndax xam naa ne kon waxee rasulullahi mooy kan pap araam na wala araamul yàllaa ko njëkkee wax dëgg yàlla hmm? yàlla mu njëkk tagg rasulullahi waaw nahnu naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa waaw waaw loo xamul da nga cay màndu te gàmm du lenn lu dul nettali ay jikkoy rasulullahi nettali dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam nit ñi gën a sopp sidina Muhammad xaj pap dañu dem Màkka ren ñuy waxtaan ak Moustapha Sy Moudir mu ni al Cheikh Ibrahima Niass jalla taala anhu dafa dugg avion jóge Màkka di dem. Mm-hmm. di xuloog benn naar mu koy wax li ngeen di def ay bidaa la. nee na nee na ko yow ndax da ngay. war ci Baay ni mel ci rasulullah. mu ni ko ndax da ngay war ci bidaa. ni mel ci gàmm waaw. mu ko ndax da ngay. ni mu ni ko avion bii ñuy war di dem bidaa la yonent bi bàyyi ko fi te yaa ciy war. wax dëgg yàlla. waaw mais kaamil bii ñuy ko fi ah. qadimatun muhdasatun ayatul xaqin min arrahmani muhdasatun qadimatun pap an foofu doo koy déggee ayaatu xaqin min arrahmani muhdasatun ni lu ñu sos la ba pare ni qadimatun te qadima mooy lu amul fu mu commencé waaw muhdasa mooy lu ñu sos mu ne ayaatu xaqin moom alquran min arrahmani muhdasatun hmm. muhdasatun bi bi itibaari alfaazi walkalimaati walxutuuti waaw waaw waaw alquran mbind mi maska yi. waaw kay kaamil bi lu ñu. sos la kon lu ñu sos la bidaa la ci ginnaaw yonent bi est-ce que dafa xaraam. déedéet te ñoom ñuy wax loolu yooyu la ñuy tiim. waaw yooyu la ñuy tiim di ci waaraate. mu ni nag xadimatun xadim la bi xadim bi zaati ndax yàlla xadim la kon kalaamam xadim la kalaamun xadimun. la yumal sama aw Seexul Xadim wax na ko mais mais xas ma suur. Mhm. Euh, gaa yaa ngi wax temps jeex na. Mhm. mais ñiy caricature rasulullah ñu bon ñooñu nga xam ni àddina keroog ci jamonoom ba léegi du ñu deñ pour fexe nu ñu fayee lislaam seeni doom di ñëw ñu bëgg a déstabiliser gaayu lislaam bëgg a tilimal waa ji te mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam sama maam waxoon na ko wa yamkuruuna ixtiraaran zaaka dëbuhumu wa yamkurullah itmaaman li zullihimi lan ngay jox téléspectateurs yi nga xam ni ak soppi Seydina Muhammad yi nga xam ni fii jamono toll ni ñëpp am nañu naqar xam nga am na loo xam ni kenn du ko yàq dañ cay yàqoo dañ cay yàqoo waaw wax nga ko alaaj Maalik wax na ko yaa ko wax léegi waaw wa yamkuruuna ixtiraaran xam nga li gën a bon mooy jëxlul murakkab Serigne Cheikh Tidiane si nee na ku réer ci sa xam-xam toskare waaw xamoo te jàpp ni xamoo ku réer ci sa am-am toskare nee na nit dina réer ci xam dina réer ci am-amam mm-hmm. ñoom dañoo réer ci seen xam-xam ndax amuñu ki leen gide ñàkk kilifa moo leen dal wayam kuruuna ñu ngiy pexe pour yàqal yonent bi waaye xamuñu ni ixtiraaran dañoo waru bu ñu dindi woon xijaab yi rek ñu xam ne dañoo waru waaye mënuñu dindi xijaab yi parce que laabu ñu laabu nu waaye alaaji maag ni wa yamkurullaahu yàlla di yàq pexe yàlla du pexe al makru wa amthaaluhu laa yusnadu ila zaatihi subhanahu wa taala mhm. da nga naan wa yamkuruuna tiraaran zaaka dëbuhumu waaye wa yamkurullaaha yàlla bi yàq seen pexe lu tax itmaaman li zullihimi ndax yuriduuna li yutfiu nuurallaahi bi afwaayihim mhm. wallaahu mutimu nuurahu leeruk yàlla mënuñu koo fay walaw karihal mushrikuun sëriñ Mansour si borom daar e xalif général sa turandoo ne kon boog yéen a ciy yàqoo fa tabat ya daakum mooy ñiy carica caricature rasulullah ñoo cay toroxee ñoo cay yàqoo. fa tabbat daakum te ku ñu laal sa xol nga am loo yëg. waaye mais ñi koy def tey maa ngi seetaan journal journal réew jullit yi ñu bëri ni seen produit dootu ñu ko jëfandikoo te seen économie mu ngi koy mu ngi mu ngi ciy dellu ginnaaw. billaahi. ah parce que image dañu laal dañu laal suñu xol nag. noo am na loo xamante ni nii li nga xam ne boo ko sànnee ci luy lay dellusiwaat la ngay sànni na baax. ndax ku ñu waajal foo xam ne xamoo ko defare ko fi ñu ko xam ne xamoo ko yeppee ko foo xam ne yëguñu ko kon kooku mandul ci ay mbiram. te jamono bii li leen tiital mooy dañu waxoon daaw euh, ñetti ci ginnaaw ñeenti at convaincre na euh, deux milliards moom rasulullah waaye fi mu toll romb na ko. mais religion bi ëpp ay nit ci adduna mooy lislaam yépp fay nañu. wa jaa bi aayatin maxat kulla qaalatin. billaahi. wa jaa indi na. bi aayatin ci sharia maxat far na man suuqal na kulla qaalatin bépp sharia sharia yi fi nekkoon yooyu fi nekkoon man suux far gisatuñu ko te bu lislaam bi des fi ba tey moo tax nag dañuy dañ dañ dañuy ëppoole sharia yi ñu bokk yi ñu bokk te lislaam te lis ma xew ki ñi nga am ñépp il faut nga jëm ko téq mhm. waaye sidna Muhammad dafa indi sharia bu man suuxal sharia yi ñu fekkoon yëpp moo tax ñoom sharia yi ñu bokkoon. Uh-huh. sharia listul islam man suuqal ko ñu bëgg a jàppale seen sharia yi boobu naan dañ koy téq. sallallahu alayhi wa sallam. waaye téq koo dul jot sànni koo dul jot. ñoo ca yàqoo. ñoo ca yàqoo ñoo cay alage. seen image yàqu na ci ci àdduna bi billaahi seen économie mu ngi dellu ginnaaw ndax réew jullit yu bëri nee nañ dootuñu consommer seen i mhm. ba ñoom ñi nga xamante ni sax am na ñu dëkk seen biirum réew ñu ngi contre ci loolu ndax ay jullit ñoo nga fa. waaw koo xamul fu ñu ko defaree teeyal ci ay mbiram fa tabbat yadaakum ayu al usbatu allati usba mais mais mais Sidi Mouhamadou Mansour borom daara ji moo waxoon lii. waaw sama turandoo moo wax lool ayu al usbatu allati tusiu bi rasmil badri allahu akbar yéen de yéen a ngi ñaawal albadr muy yonent bi bi rasmi bi rasmihi naanam bi maanaa di ko caricature caricature di ko caricature bi rasmil badri te ki ngeen di caricature kooku xamu leen ni sirrul bariyati mooy secret mbindéef yi waaw suñ baa wa xiiratullahi sirru zaati safwatuhu sirrul wujudi wa jawdul juudi naamaau ixnaau kullil wara fi ntalli diimatihi fa kayfa diimatuhu lil barri hëtlaau sallallahu alayhi wa sallam dégg na lu ne moom rasulullahi wa xiiratullahi moom yonent bi mooy tànneefu tànneefi billaahi sirru zaati mooy secret jëmm ja billaahi safwatuhu mooy ka ci gën a sell mm. walillaahi xulsaanu wala ka safiyihi moom la ibnu muhayib waxoon yàlla am na ñu sell ñu tedd mais kenn melu ci noonu safwatuhu ñu ngi ko sëñ Babacar Keye wax mu ne sirrul wujudi secret nekk tee fi ah. ndax alfaatixe li maa uxliqa min butunil adami ila al ijaadi sallallahu alayhi wa sallam sirrul wujudi wa jawdul juudi naama o sallallahu alayhi wa sallam lii ko sëñ Babacar si mu ni ixnaa u kullil wara billahi diimatihi fa mu ni rasulullahi kubéer gi la ñu ëcc ubbi lay xeeñ suur mbindeef yépp mu ni bu ñu yàkkee fu ñu jëm mu ni naa u kullil wara la dal mbindeef yépp fii talle diimati yi nekk na ci mbandantal waame ba xam nga waame balaa mooy wàcc day am taw bu cepp-ceppal ba wàcc nee na taw yonent bi cepp-ceppal baa wàcc daw mbindeef yépp mu ni fa kay fa diimatuhu nee na waame ba wàccee nag hëtt laa ulil barri fu nit ñi jëm kenn xamu ko xam nga lan mooy diima ba déedéet mooy rahmatun waahid waaxida waaw benn yërmande bi yàlla bi binde binde fii yépp juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi mooy diima ba kon juróom-ñeent fukk yërmande yi ak juróom-ñeent yi ndekete mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mooy siraat mustaqim Pape an yoon dañ koy topp wala dañ ciy dox dañ ciy dox dañ ciy dox ah yàlla ni wa anna haza siraati fattabiuhu topp leen ko moom rasulullahi kon mooy rasulullahi mi ngi noonu sirrul wujudi wa jawdul juudi ma naama oh. sëñ Babacar si nee na nee na yonent yëpp ku ci nekk am nga intermédiaire sa digganteek sa borom ba mu des rasulullahi fa akrim bi faslin minal athaari suñ baa akrim kaw téef ak tedd nga bi faslin ci doom boo xam ni waasitatun mooy intermédiaire minal athaari bul wax ñu laab ña de ci yonent yi ñu ni ko moom kuy intermédiaire mu ni min ghairi waasitatin amul intermédiaire digganteem ak boromam ñu ni kooku ku ko mën a jur ci àdduna mu ni naalat hu zahraau oh <laughs> mi ngi noonu kii wax léegi bayit yooyu ci ko wax mooy Sidi Fagay de Mac Jawaar Serigne Babacar Sy lu ne wax na ko Cheikhu Tidiane yi lu ne wax na ko baayam Seydi El Hadji Malick waaye lu ne wax na ko Seydina Mouhamed boo jëloon diiwaanu Alhaji Mouhamadul Mansour rakkam ju baax baay baayu xalifa bi lu ne wax na ko rasulullahi lu ne wax na ko Cheikh ak baayam waaye boo demoon ci diiwaanu Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh nga xam ne lu ne wax na ko yonentu beeg Cheikh ak baayam ak Alhaji Mouhamadul Habib moo tax Pape euh. dama lay liiral lii rek wen du ma ko firi. waaw pour li nga wax. bu ko ñu ñu ñu daanelee foofu wax lay daanelee. waaw ci juddu gi. war na ne Seydi xaaj Maag lu mu mës a baaba Babacar Si suul na ko. waaw. Seydi Hadji Maag dañuy waqat tawaalat ala al afaaqi wa tasalat bushira al fi fii milaadihi l karami sëñ Babacar Si ni ko bu bushira al fi baay fii laylil wilaadati daa rat zaaka sha'nun ataa lil yawmi alaa'u Sidi Xaaji Malik baayam ne xarat li mawlidihil awsaanu wan ba asat mhm. sawaqibu shuhbi tarmil jinn bi rajumi sëñ Babacar Si ni ko bàyyi kama haamatin duribat min xiini mab'athihi min ash-shayaatini an najwa laqad baa'u ka annahum xumrun farrat bi xaswaratin fi ljawi maa xuliqat samxun wa isgaa'u aw annahum izra'u min aksi ma talabu abtaalu abrahatin fi la fi lwaadi laa'u farru wa zallu maa al asnaami qad saqatu ka annahum min samaai llaa'i warqaa'u sigaaruhum saara daa'an min sallallahu alayhi wa sallam bihi ayatun wa hajaa'u sidi haaji maaj doom innal bashaa'ira ma zalat tubashiruha hatta tanarat hatta tanarat nawahi sham bi tahmi bi tahmi ci juddu ko bàyyi xadis sabanat min al absari ya ajaban xusura barakallah qaysar bushra fihi laaw sidi haaji malik ni ko doom xaalal malaiku abwaabu sama futihat kazal jinaanu wa nuuru shamsi fil azmi sëñ Babacar Si ni ko bàyyi ashaatul badri fii laylil wiladati tëz rimin ashaati badrin fihi adwaa'u sidi haaji malik ni doom wa shammatadha nisaa'u salaatu sanan tashmituhal malaul ala zawil karami sëñ Babacar Si ni ko bàyyi yow mun li mawlidi xallat malaikatun rahmaanu oh, qad chamata oh. kullu doom ataana Cheikh Seydil Hadji lama ata hallati yaati nisa araat janaha tayri nafa ma hala min jusumi sëñ Babacar Si ni ko bàyyi tamal faxaaru laha min sahli wadi habi bin shaa minhu laha jaahun wa ba waahu. baarakallah li ma ci doon indi mi noonu am nañu mbégte mbokk yi Hazma Sour Dieng yaakaar naa euh, euh, waxtu wi ñu waaye fukki waxtu benn weer at euh, doyul ci Seydil Hadji Malick ak njabootam waaye doyul ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye gis ngeen tey yaakaar naa mbooleem koo xam ne yaa ngi toogoon jàkkaarloo ak nun am nga mbégte Hazma Sour Dieng ngoog. boroom xam-xam la yaakaar naa borom xam-xam yeeg ñi nga xam ne ñu ngi fortaatu ñi nga xam ni euh, seen jàng soriwul ñoom ñëpp tey jii am na lu nu yëg dégg nañu li muy wax yal na yàlla gën a barkeel xam-xam bi xas Mansour na nañu am nañu bégte mais daañu am beneen jotaay bu gën a yaatu incha allahu taala ma bàyyi la allah di la sant di la gërëm ah ci mbaax gi nga am ba mhm. wooñu boole ñu si lii. Mhm. Ah, te tamit ñu doon ci ñi gën a tuuti ci njabootu Seydi Hadj Malick njabootu sëñ kër si di nuyu xalifa bi di ko ziyaar mhm. di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal taw amiin yaa ci lu mu dugg ak lu mu génnee lu mu yëkkati ak lu mu teg mhm. loolu la ñuy ñaanal alxaaji Maodo si da baax di ko ñaanal sëriñ kër si Mansour Abdoul euh, mhm. di tamit nuyu suñu sëriñ suñu wasila suñu jokkuwaay suñu xarit suñu mag sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy al Amin. Mm-hmm. di nuyu magam ju baax ji. sëriñ Babacar Sy di nuyu rakkam ju baax ji sëriñ Sidi Ahmed Sy. Mm-hmm. ñuy nuyu suñu sëriñ sëriñ Cheikh Tidiane Sy Mansour. Mm-hmm. ak rakkam yu baax yi sëriñ Habib Sy sëriñ Mame Malick Sy. ñuy nuyu sëriñ euh, Mansour si Jamil ak rakkam yu baax yi Ahmada sëriñ Sidi Ahmed. di nuyu sëriñ euh, Mansour si al Maktoum rakkam yu baax yi ñu leen di nuyu. Ah, sëriñ Mouhamadul Moustapha sëriñ Mouhamadul Habib. ñu leen di nuyu ñoom ñëpp njaboot Seydi Hadji Malick ak njabootu Maam Habib ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di ziar sëriñ Moulay Si sëriñ Sidi Ahmed Mouhamadul ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu tamit suñu taawu baay bu góor sëriñ Cheikh Tidiane Diène mu yóbbuwaale njabootu alxaaji Ousseynou Diène gi yëpp di leen sant di leen gërëm alxaaj Pape lu ci jub ci yàlla la lu ci dëng ci suñu matadi la wafaqana allah wa iyaakum li taatihi wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mi ngi noonu am nañu mbégte xaaj Mouhamadul Mansour Diène mbokk yi yaakaar naa tey jii ñëpp bég nañu ñu ngi fii ci Tiwaawoon tey jii xam nga ni euh, burdu bàngoog ma ngay jeex waaye itam ñu noppalu alxames ak jàmm nu gàmm gàmm ga nag sëriñ bi ci ndigalam nañu gàmm suñu biiri kër ak télévision Futurs Médias daañu leen gàmmul bigal leen ci Seydil Hadji Malick jàmbaar ja ngeen toog télévision Futurs Médias woo boromi xam-xam yi nu wax leen kanay rasulullah yi seen cofeel ci moom gën a yokk sunu bëggeel ci moom yal na ko yàlla gën a dolli saa yu ñu xëyee saa yu ñu yewoo di ko gën a bëgg ak loo mën a wax ci moom moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu koy gën a bëgg ba jiitu am na ñu leen fi jiitu woon boobu lislaam bi toll woon tolluwul woon nii daan nañu def ak di wax yu gën a garaaw yi ngeen di wax tey teewul nit ñi di ko gën a sopp nit ñi di ko gën a bëgg ngeen jaaxle seeni doom ak seeni mbokk seeni jarbaat fàqe koo ku ci am doom noo ko tuddee mu ni muhammad rasulullahi nga jaaxle ci loolu nga ni kii ay mbiram ma nga jëm kanam nanu gaaw nanu ko fayee waaye yàlla ci boppam moo ko téyal boppam te yàlla ne ku lu ci man ma téyal sama bopp moo ñu joxañ waa ji sunu cofeel ci moom di gën a dolliku am nañu mbégte Yaya Diallo mu newoon ci caméra bi alxaaji apulaay Alassane ak seeni mu newoon ci régie bi moo of mbay Pape Silla ci son bi ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral groupe Futurs Médias mi ngi noonu sunu journaliste yi ñëw nañu ñu ngi def ay documentaire teewul ñu leen gën a wan Seydil Hadji Malick ak njabootam ñaanal njaboot gépp ñaanal sëriñ xalifa bi yàlla gën ko fi bàyyi mu yàgg fi lool mu yàgg fi lool te wér lool ak njabootu Seydil Hadji Malick gépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.